bokki jullit yi ak bokki taalibe yi sëriñ Mouhamadul Bachir nee na mi ngi yëkkati kàddoom ci ndigalul cheikh Mouhamadul Muntaxa kon mu ne sëriñ Muntaxa nee na mi ngi yóbbante am nuyoo ci sëriñ Amdi moom sëriñ Modou Mbenda mi fii jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall tey ci kaw suuf ndigal li nag mooy. fàttaliwaat li nekkoon mooy fàttaliwaat rek li ñu nekkoon. mooy ndigal lim ko santoon. muy ndigal lim ko santoon. te bam leen ko santee ba nëgë ni. te bam leen ko santee ba nëgë ngi koy def nag nu kawe njortul sëriñ bi. muy nag loo xam ne du mbetteel ci moom. ndax lu jógee kër sëriñ Touba. jëm kër Cheikh Ibra. noonu képp la war a demee. kon seriñ bi nee na mi ngi santaat am di bu baax. di leen ko yóbbante. sëriñ Assane. yaak sëñ Daam. ak maam Cheikh ak bokki taalibe yëpp. nee na bàyyiwut kenn ci fi ñi fi teew. sëriñ bi nee na mi ngi leen di yobbante ak cantam ak ngërëmam. te xam ne kat noppaluwu leen benn yoon. yéen a ngi si liggéey bi yéen a nga ca daara ja. yéen a ngi waajal koor gi. kon yéen wàccu leen benn yoon. liggéey bi nag tax liggéey bii tax nag ñu daja fi tey. Serigne Mouhamadul Mountakha daa wax ne. sunu borom daa waxoon ci alxuraan ne. amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi kullun amana billahi wa wa kutubihi wa rusulihi mooy yonent bi ci boppam. mooy yonent yi ci boppam. yonent bi ci boppam. day gëm boppam. day gëm boppam. doog a a jariñu ci boppam. doog a mën a jariñu ci boppam. sëriñ sooy bu daan wax ne. sëriñ sooy bu daan wax ne. boo gisee sëriñ Touba. boo gisee sëriñ Touba. daan jàpp ba noppi. daan jàpp ba noppi. di ci barkeelu. di barkelu ca jàpp ma. nee na mooy njabootu sëriñ Touba gi. mooy njabootu sëriñ Touba gi. kenn ku kenn ku ne. yaa ngi sàkku sëñ Tuubaa sa morom. yaa ngi sàkku sëñ Tuubaa ci sa morom. loolu la tax sëñ Tuubaa daan ko def. loolee la tax sëñ Tuubaa daan ko def. da koo bis. da koo firi woon bis. waxoon ne. daa waxoon ne. li ñëpp gis ci li ñëpp gis ba daw jëm ci li ñëpp gis ci sama jëmm ji ba daw jëm si ci. loolu la gis la ji gis boppam. nee na loolee nag la jëmm ji gis ci boppam. te bëggut ku ko ci ëppale. te bëggut ku ko ci ëppale. Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ne. Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ne. la liggéey bii mu santoon Baye Fall yi. moo tax moom itam. moo tax moom itam. joxe addiya ñëpp la war. joxe addiya ñëpp la war. moo tax oto yii mu jël ko. moo tax mu jënd oto yii. muy ñeenti oto. muy ñeenti oto. def ko addiya sëñ Touba. def ko addiya sëñ Touba. tabbee ko ci biir liggéey bi. tabbee ko ci biir liggéeyu Cheikh Rafal bi. nee na tuyaaba ji ngeen ci am. nee na tuyaaba ji ngeen am ci liggéey bi. la ci bëgg am moom it. nee na moom it la bëgg. mu jënd ñeenti oto. noo tax mu jënd ñeenti oto. jox leen ko jox ko. ko addi ci biir liggéey ngir def ko nag addiyaam ci biir liggéey bi Cheikh Rafal bi. ndax nee na war mooy dëkk bi. ndax nee na war mooy dëkk bi. da koo ñor lool. da koo ñor lool. ndax sëñ Touba da koo ñaan. ndax sëñ Touba da ko ñaan. ci matlabul fawsayni. ci matlabul fawsayni. wàccal xarimana. wàccal xarimana. xariman amina. xariman amina. wa kun bi xifsihi. kafiidan damina. kafiidan damina. nee na kon wóor na ko ne. nee na kon wóor na ko ne. dara fi dara mënu moom mënut am ci dëkk bi lu weesu jàmm. li fi sëñ Touba bëgg itam. li fi sëñ Touba bëgg it. suñu borom defal na ko. suñu ko ba nag. ndax da di ne. nit nekk ci biiram du ko yëg. nit bu nekkee ci biir mbir mën na koo bañ a yëg. waaye Touba de li fi am. waaye Touba de li fi am. ci jàmm ci jàmm. amul ku ko génn xam ne amul fenn ci àdduna. loolee nag. loolee nag. sëriñ bi dénk leen ko. sëriñ bi dénk ko ko saytul. ngeen di ko ko saytul. nam ko bëggee nam ko bëggee. kon nag na ngeen eh, sant bu baax a kon na ngeen sant nag bu baax. xam ne la alxuraan waxoon ne. te xam ne la alxuraan waxoon ne. laa yastawil qaaxidoona. laa yastawil qaaxidoona. minal mu'minina minal mu'minina xayra uli darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwali wa anfusihim fadlallahi mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal xaahidina darajatan wa kullan waxdallaahi usna kon yéen ñi futti ko kon yéen ñi nga xam ne yéen futteeku jaayante jaayante seen guddi ak seen bëccëg seen guddi ak seen bëccëg jox ko sëñ Tuubaa jox ko sëñ Tuubaa mënu leen yow mukk ña toog mënu leen a yam nag ak ña toog ci seen i kër kon loolu kon loolu taw feex rek la sëriñ baa ngi leen di sant te xam ne liggéey bi itam te xam ne liggéey bi itam liggéey bu tàmbali la liggéey bu tàmbali la te xam ne nag du dakk ba àddunay tukki ba ci suñuy sët. ba ci suñuy sët. nii la war a wëyee. nii rek la war a wëyee. ndax liggéey bu diis la. moo tax nag kon. moo tax nag kon. mi ngi digal taalibe Serigne Touba yëpp. mi ngi digal taalibe sëriñ Touba yëpp. na ci ñëpp ànd ak ñoom. na ci ñëpp ànd ak ñoom. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. sàmmale leen ko. sàmmale leen ko. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. defar sa jëmmu defar sa jëmm. ba ba kenn bañ laa jubbanti. ba kenn bañ laa jubbanti. ñi nga xam ne nag. ñi nga xam ne nag. defaru nañ ba noppi. defaru nañ ba noppi. ku am kàttanu xalaat. ko am kattanu xalaat. nga nga jàppale leen ci. ku am kattanu jëf. ku am kattanu jëf. ci sa alal ci nga dimbale leen ci. joxe sa ndax joxe sa alal. dara ëpp ko tuyaaba ci ëpp ko tuyaaba ci yoon wi. te Serigne Touba waxoon te Serigne Touba waxoon na Cheikh Issa Dieng na ko. baa amoo taalibe bu nanguwut a liggéey. baa amoo taalibe bu nanguwut a liggéey. mu ne ko boo ko amee da bëriwut. mu ne ko su ma ko amee da bëriwut. mu ko boo ko amee wàcc ko. mu ne ko boo ko amee wàcc ko. ndax taalibe bu murit. ndax taalibe bu murit. bu nanguwut a jox sëriñam addiya. bu nanguwut a jox sëriñam addiya. nanguwu koo liggéeyal. nanguwu koo liggéeyal. ab sëriñam mënu koo jëriñ. ab mënu koo jëriñ. kon lool képp mooy li ci am solo. sëriñ bi nee mi ngi digal taalibe yëpp. kon sëriñ bi neene mi ngi digal taalibe yëpp. ko am kattanu mën a jox ab ko am kattanu mën a jox Baay Faal yi ab oto. na ci joxe ndax du doy. ndax na ci joxe ndax du doy. liggéey bi ndax liggéey bi daa rëy. ku amut kàttan mën joxe oto. ku amut kàttan mën a joxe oto nag. mën a joxe addiya. te mën a joxe addiya. ju sax ju sax. di ko ci def di ko ci def. ko ànd ak ñoom. na ko ànd ak ñoom. ndax liggéey moom. ndax liggéey bi moom. xam ngeen ne doole xam ngeen ne doole moo koy def. waaye kàttan na koy waaye kàttan na koy def. ndax mbooloo mi mën nañ ñetti mbooloo mi kat mat na ñetti téeméer ak fukk ak ñett. kon loolu lim bu diis la. te loolu limu baatin la ci yoon wi. te loolu limu baatin la ci yoon wi. ndax Serigne Touba. ndax Serigne Touba. ba muy dem ci géej gi. ba muy dem ca géej gi. waa ahlu badr yam àndaloon. waa mooy lim boobu. ndax Cheikh Abdoul Ahad waxoon na ne. ndax Cheikh Abdoul Ahad waxoon na ne. képp ku fi nekkal Serigne Touba. képp ku fi nekkal Serigne Touba. ña àndoon sëriñ bi. ña àndoon ak Serigne bi. foo nekk ñoo lay sàmm. foo nekk ñoo lay sàmm. képp ku bëgg jëme ci yow lu noona. képp ku bëgg a jëme ci yow lu dul noona. ñooña ñooy dox sa digganteeg loolee. kon nag ñu ngi ciy soññ ñëpp. taalibe yëpp. sëñ Abdou Lahad Ka mi itam. bi ko ko bi ma ko ko yëgalee. jox ko ci ndigal. jox ko ci ndigal. na ko yow kat yaa jiite maire bi. yaa ci war a jiitu kon. yaa ci war a jiitu kon. sa wa sa jëf moo ci war a njëkk a tàbbi. taalibe yëpp ànd koog yow. fa saasa la ko wax ne ko. commune bi sosoo na ci. kon moom it commune bi sosoo na ci. weer wu nekk weer wu nekk. junniy litre junniy litre yi gasoil. bu ko defee muy dem ci oto bu ko defee muy dem ci oto yi. kon nag loolu. noonu mu ko defee. noonu mu ko defee. ni la ko ñëpp war a defee. ànd koog ñoom. kon ñi ngi sant bu baax. di bañ a guddal kàddu yi. di ñaan rek. yàlla na ko Serigne eh, Touba tàbbal. yàlla na ko Serigne Touba nag tàbbal. ca liggéey ba Cheikh Ibra liggéeyaloon Serigne Touba. ca liggéey ba Cheikh Ibra Fall liggéeyaloon Serigne ba señ Touba nangul ko ko. ba lépp demee nii mu demee. ba lépp demee nii mu demee. liggéey bi yàlla na tàbbi ci biir. liggéey bii yàlla na tàbbi ca liggéey boobee. lam ca làqoon ci ngërëm lam ca làqoon ay ngërëm it. ngërëm yi yàlla na tàbbi ci yii yàlla na tàbbi ci ngërëm yooyee tolloog li alxuraan di wax rek ne. mu tolloog li alxuraan di wax ne. ña jiitu. ña jiitu. ci ngëm. ci ngëm. bu ngeen mënta àgg fa ngeen àgg itam. ba ngeen mënta àgg fa ñu àgg itam. bu ngeen góorgóorloo rek. seen pësteef àggale leen foofu. yéen nag yéen nag. am ngeen tawfeex. am ngeen tawfeex. ndax li leen seen maam fàggul. ndax li seen maam fàggul. yéen Baye Fall yi. yéen Baye Fall yi. mooy lu mujj juddu rek. mooy lu mujj juddu rek. ëpp pësteef ëpp pësteef. loolu moom pàgguteef la. ndax àdduna soppiku na. ndax àdduna soppiku na. jamono ji yàqu na lool. jamono ji yàqu na lool. waaye yéen ku dugg ci seen biir kër yi. waaye yéen ku dugg ci seen biir kër yi. xam la fa nekkoon démb. xam ne la fa nekkoon démb moo fa nekk ba tey. dara soppiku ci yéen dara soppiku ci yéen. mbuum mu baax sax soxlawu leen ko. mbuum mu baax sax soxlawu leen ko. waxuma ak tabax bu rafet. loolu moom taw feex la ak pàgguteef waaye du lu doomu aadama mën a defal boppam jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah